السلام عليكم ورحمة الله بوك انترنت يوشن في بل تي في نونا لين بو باخ باخ نزيار لين كيب كو خامن تنغا بيش شين بلا بول خار ابونيل كليك لس كلاس بوم غيغي بلو بندوغا نغا مانكو سيدان بول فاتي تيم امي فيديو سي تريز امبورطان تاني دا مي نيو واخ سي بن سيجو بو خامن تنغا سامي تيان بوكو اكور موي افاي دو راسيزم نيب سيدان نان فينال كوب دوروب ci diggante Italie ak Angleterre ñetti joueur Angleterre rate Sancho Seka ak Rashford bi mu jeexee nag si réseaux sociaux yi fële ci Angleterre dañ leen doon def affaire de racisme ba joueurs yi xamante ñoo ngi en activité naxaru nañ loolu ak joueurs yu xamante ne bàyyi nañu football man nag benn message laa jàllale muy message bu Khalilou Fadiga Khalilou Fadiga la la wax dane vous serez jamais des Belges

booy dugal bii dañ naan la français mais bu fekkee yaa ngi commencé dañ naan la franco sénégal waaye bu fekkee yow euh, sawar ñu seen bi xam nañ ne tàngoo ñu ne la franco nàngam mais bu fekkee nga mën a football man li euh, bu ñuy def lu baax et ñëpp xam nañ ne saa nañu final coupe du monde final coupe d'Europe fin ay final ligue des champions ay blanc direct kenn waxu leen dara donc CECA ñooñu noonu kenn waru leen wax dara parce que football la football moo demee noonu série penalty moo moo demee noonu maintenant nag loolu moo tax message bu Khalilou Fadiga boobu mu am solo damay joxe beneen exemple ci tëkkër boobu xamante ne sénégalais la muy euh, Khabila mu siiw loolu instant yi moom mooy tiktokeur bi ñu gën a siiw ci monde bi xam moom bi mu commencé xam nañu wax italien dañ naan c'est un italien et que bu doo avant muy liggéey muy nekk tiktoker tiktoker bay am buzz boobu noonu c'était un benn waay bu xamante ne origine euh, sénégalais Sénégal la jóge c'est un sénégalais mais du moment que am na buzz voilà c'est italien tubaab bi bu ñu yëpp quoi franchement tubaab bi bu ñu ñu yëpp maintenant nag man ñu ña lañ mën a waxal mooy bii na yi message bi lañ leen di jàllale mooy que ñëw leen fii ngeen ñëw fii seen réew fii xamante ne seen i papa seen i maam fii la ñu sasoo fii mooy seen origine ñëw leen fii ngeen football 50 ans après comme ni ma ko waxee boo leen gagné coupe d'Afrique dañuy wax dañuy wax ci yéen dañ leen jox ben respect bu xamante ne mënoo leen ko am dëkk yele xolal Jomas euh, rek la jox xam nga tax jox exemple Jomas dama gis ne Jomas jëlu fi benn trophée Jomas du ay biim fu mu du lu du lu extraordinaire lu mu fi def et pourtant bu ñëw fi Afrique cër bi ko yor mënu ko am France donc jël leen beneen exemple ba fiti mu Gomis dafa regretter li tax mu dem France ma joxaat beneen exemple Evra fii la taxaw ñëpp di ko dégg mu def vidéo xam nga démb woon tey du ñëw Sénégal et que bu fekkee am na conseil bi muy joxe mooy que nit ñi ñëw fii nii Benzema fii la taxaw aussi bi ñu ko wootulee équipe de France une partie reste de la France moo tax man mën ñu ma choisir donc dañuy dañuy dañuy naaxante rek naaxante lañ fi nekkee mais bëgguñu ñu neexul ba neexul mais bëgguñu noir yi quoi parce que aussi tamit euh, Boateng fi la fi nekk ñu def affaire de résiste joueur yi nekk toogal ci biir alors que joueur yi ñoom ñoo war a àndal génn de ñu nekk toogal Ronaldo ñëw def nañ ko Eto'o def nañ ko Daniel Elvis def nañ ko tout le temps de nous koy donc nous euh, na la mën wax et que message bobu joxe ñun noirs ñun ñun voilà noirs la dañu Afrique championnat bu football suñu biir et que bu fi Demba Demba Istanbul contre Paris Saint-Germain affaire arbitre arbitre bi affaire ñu match bi à part ça ay message yu dul jeex des fois ay message ak FIFA ay message yu dul jeex lañu fi andi te loolu euh, taxul dara avancé quoi ñëpp nangu nañu ne loolu mënul avancé loolu dara mooy que seeni i banderole yi ñuy def noonu wala Ibrahima bis Cristiano Messi ñoom ñëpp ñu ne non non euh, racisme loolu mënul avancé dañu war a jox ñi ñu ñuul ñi seen ax man Angleterre nak voilà duñu ma bétti quoi donte Angleterre bo xolé ci football bo demee ci histoire amone les hooligans mo support supporté yi gëna dof yi gënoon tënk xam nga Angleterre la amone bo boo leen gisee léegi dañoo changé ñoom dindi ñoo complètement té ñi nga famille la dañuy ñëw tàccu yuuxu xam nga man boo gisee sax euh, coupe coupe bi ñum la ko yéene won coupe bi li tax ma yéene won lañ ko voilà xam nga sen championnat neex na voilà quoi je m'y trouvé quoi pour nous faral Italie tamit je peux comprendre ku nekk ak ki nga faral mais du il équipe bi mu numéro un mais bon dañ dama am déception pour maximum et que à chaque fois c'est comme ça dañ naan parce que dañoo wax ne anglais ñoo tane parce que anglais yi tamit c'est un championnat yi di ko dégg Italie souvent souvent di nga ko dégg Italie di nga ko dégg Espagne France tout, touti France Bastia ñoom Corse yi Bastia Ajaccio yooyu tout tout. touti

benn dëkk tubaab ak benn dëkk fii Afrique ñoo leen fii Afrique ngeen joué ngeen bàyyi leen ak seen dëkk fii nii boo leen fi defee lenn ay joloore kan du leen mas a fàtte te affaire rës mi doo leen ko mas a am fii nii donc lii moo nekkoon message bi mbokki yi ci commentaire bi ma ngeen ma wax seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal nag bu baax a baax di leen wax ba beneen sur ba TV